مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ak xarit yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar di jiital ci nuyoo bi sëriñ Mountakha Mbacké xalifa général des yàlla yàggal ko fi ak mboolem xalif bi fi nekk mbokk yi xam ngeen jënd ak jaay nekk na activité bu nga xamante ni ràññee nañ ko fii ci dëkk bu sell bi moo tax tey ñu ñëwaleel leen fii ci marché Daaru Xuddoos fa seenee xool yan façon yëngu-yëngu moo fi am aussi tamit dinañ sekk waxtaan ak Serigne Matar Touré mu indil ñu ay leeral ci marché bi fonctionnement nan lay doxee bu ko defee ñu ànd ak suñu caméraman Mamadou Cissé ñu dugg ci biir midaadi wa qalami lima zaada xëy marché Daaru Xuddoos nag euh, marché la boo xam ni ñoo ko sos dans les années soixante seize soixante quatorze soixante quinze soixante seize euh, jamono boobu nag bi ñu ko sosee mu mm, ngi tuddoon marché Ndigal marché la boo xam ne tam nekkul woon comme comme nii marché bi mel comme ni marché yu bees yi mel la woon rek marché la boo xam ni maanaam marché hebdomadaire la woon boo xam ne lundi ba lundi. lan fi daan jaay par la suite nag euh, lan commencé nag euh, di dem di dem di dem ba nga xam ni nekk na marché boo xam ni euh, day nekk marché ouvrable à tous les jours. bi ñu ko sosee nag xam nga comme marché bu bees moom boo ko sosee du dox surtout marché boo xam ni hebdomadaire lay doon lundi ba lundeeti jaaykat yi dem ba lundi ñu dellusiwaat léegi nag bi ñu demee ba ci biir ñu continuer nag bu amee ñuy dem am ñu fay des. mu nekk marché bu xaw a wéet ko marché yu bees yi euh, taxu ko woon a dox ba mu doxul nag ci la commerçant yi fi nekkoon dajaloo woon à l'époque daal di dem siyaare ji sëñ Abdou Lahat xalif général des Mourides moo fi nekkoon siyaare ko ni ko nag léegi marché ndigal lan jóge muy marché ba nekk ca Daaru Xudóos léegi danoo bëggoon nga ñaanal nu ci daal euh, ba ma gën a jëm kanam euh, ci la leen sëñ Abdou Lahat ñaanalee nag nii leen bu ngeen demee na ngeen ko tudde marché mubaarakatu mooy marché bu barkeel bi léegi nag loolu moo fi jëlee marché ndigal ñu tuddee ko marché mubaarakatu mooy marché bu barkeel bi sëñ Blaat xalif général de Mourides moo joxe woon turu woowu. Euh, marché mubaarakatu moo nekk ci këyit yi daal fi mu toll boo demoon village su Daaru Xuddoos marché mubaarakatu lan lay wax mais comme Daaru Xuddoos Euh, marché bi dafa nekk ci biir Daaru Xudóos ñu ci bari xëy na tur wi duñ ko faral di dégg lu baax euh, lu bari moo tax ñu naan marché Daaru Xudóos comme par exemple rek boo boo ma jox la benn exemple bu ndaw xam nga euh, ay jamono daa nga dégg ñu naa garage bu pompier mais garage ba du pompier mais quand chapeur pompier ba fa ne moo jox turam garage bi loolu nag comme Daaru Xudóos la marché bi ne moo tax gars yi naa marché Daaru Xudóos rek mais euh, dëgg-dëgg marché bi marché Moubarakatu la tudd. dafa am benn comité de gestion boo xam ne ñoo ñoo yore gestion marché bi euh, délégué yi nekk ci marché bi ñoom ñoo ko siq euh, kenn ku nekk am na rôle boo ciy joué parce que am na délégué am na adjoint premier adjoint deuxième adjoint troisième adjoint. trésorier secrétaire général mu nekk benn bureau boo xam ne bureau comité de gestion bi lay doon léegi nag li ñuy def mooy euh, sa à chaque fois su weer wi dee bon dafa am ñoo xam ni ñoom ñooy jóg dugg ci biir marché bi fayeeku commerçant yi ci nekk kenn ku nekk am na loo war a fay léegi nag loolu buñ ko dajalee day doon somme boo xam ni euh, c'est une somme assez importante ñu jël ko fay ci ñi nga xam ne ñoom ñooy yore sécurité marché bi di ko garder jënd ci maanaam ay produits yoo xam ne moom la ñuy nettoyer toilettes yi euh, fay ci ñi yore toilettes yi di ko nettoyer euh, fay ci dépense yi nga xam ne moom la marché bi di yittewoo à chaque fois daal noonu la ñuy def loolu mooy fonctionnement marché bi. ñun ñoo ñooy dem encaissé bu weer wu dee kenn ku nekk place bu nekk la nga war a fay rek ñu dajale ko léegi seet yan dépense lañ ci war a def yu jëm ci marché bi ñu def ko ci loolu mooy fonctionnement bi. waa sécurité bi nag ñi ngi ko jox benn GIE bu ñuy wax euh, euh, GIE càppi di bawol benn GIE boo xam ne GIE càppi di bawol la tudd ñoom yoroon nañ ay jamono sécurité marché Ocass mais actuellement sax ñoom ñoo yor sécurité marché Guédé marché Daaru Marnaan marché Mbaria ak marché Janoot marché yu bari daal ci dëkk bi GIE boobu ñoom ñoo ko yore ñoom leen dénk maanaam sécurité marché maire yi nag euh, vraiment fi mu toll ñun daal en tout cas de toutes les façons xaaruñu leen ci dara parce que euh, depuis des années ñun ñoo yore euh, maanaam vida bu fekkee fosse yi dafa fees yi nekk yu toilette marché bi bon comité de gestion bu marché bi ñoom ñooy jël seen xaalis fay ay oto ñu vider ko bon bu fekkee mbalit la aussi ñun ñooy fexe ba sun nu ñuy def ba sun mbalit euh, dem rek euh, ak sunu moyen bopp ak yooyu comme Touba yooyu xam nga ñun amu nous n'avons pas euh, di organiser ay grève ak ay marche ak ay yooyu dañ koy def yëfi taalibe rek fexe ko gérer suñu bopp mais nag suñ ne ci commune bi du dimbali woon tam nag ñu jël waaw xam nga yàgg nañ koo def def nañ ko avec Matar Jaxate bi fi nekkoon ma euh, président conseil rural defoon nañ ko ak euh, Serigne Serigne Mourtala bu Alaaji Baara bi nekkoon président conseil rural defoon nañ ko également ak Abdoulaat Ka avant muy nekk maire dëkk bi alors bi ñu ko defee moom bon wax waxtaanoon nan ba déggo mais enfin Euh, dafa mel ne commune bi daal respecté wul woon yooyu ñu itam ñu continuer waat euh, maanaam ci sunu gestion bopp rek essayer ko jëm ko gérer sunu bopp fan yi nag gis naa commune bi ñëwaat na fi waxtaan naat naag ñun euh, ba commencé naa duggaat ci marché bi di fayeeku taxe communale yi ñu ngi ko koy fay ñu ngi leen di déglu aussi mais c'est sûr et certain que su fekkee maanaam dañuy jël taxe communale yi di dem ci itam defunu benn effort Euh, finalement gars yi dañuy mujj maanaam relâché wu bàyyi fay geeg yooyu ca loolu gënul de toutes les façons daal ñoo ngi lancé un appel à travers le maire de la ville de Touba pour daal ñu ànd liggéey pour la bonne gestion di marché de Darou dos marché Moubarakatu xam nga loolu defoon nañ ko fi taxawaloon nañ benn benn benn benn benn benn mouvement boo xam ni marché yi nekk ci Touba yëpp les vingt huit marchés de Touba ñoom ñoo ci bokkoon ñu jiitaloon président Sini Dieng délégué marché Ocas tegoon ci délégué marché Darou Khoudoss ainsi de suite taxawal benn bureau mais comme dafa am marché yu bari yoo xam ne maanaam seen délégué danoo nekk conseil municipal xam nga bon des fois ñu dajaloo waxtaan même bu maire bi respecté wul. ma ay engagement ma tam conseiller yooyu dafay mel ne dañ leen dañ ciy jàppale maire beeg yooyu moo tax finalement après ñu tàyyi kenn ku nekk toogaat fa nga toog mais loolu amoon na. waaw Touba comme vous le savez xam ngeen nii c'est une ville intégralement commerciale dëkku commerce la bon économie bi mi ngi dépendre ci commerce bi bon Touba moom dëkk la boo xam ne moom kenn mënul wax. Euh, activité principale lu marché bi euh, kii dëkk bi ca euh, waxoo commerce dëkk la boo xam ne presque ñi fi nekk ñëpp li ci ëpp daal dañuy yëngu ci wàllu commerce kon commerce am na fi importance. changé na nag parce que xam nga jamono booba amul woon comité de gestion bu yore gestion marché bi te léegi am na commité de gestion boo xam ne ñoo yore gestion marché beeg yooyu ñooy organiser booba marché la boo xam ni pratiquement amul woon ay toilettes amul woon yu bare bari manqué woon na ko. donc bi ñu demee nag ba nga xam ne yu ci bari jamono moo koy laaj ci lan taxawul benn comité de gestion boo xam ne moo yore gestion marché bi muy dox vraiment ba léegi fi mu toll nii daal lépp lu nuy def ñun ñooy daje xalaat def ko fexe nu marché bi jëmee kanam. ñu ngi ciy yëg suñu bopp bu baax parce que commerçant yi fi nekk yëpp kenn ku ci nekk vraiment ñi fi xëy si seen activité principale mooy commerce. que kenn ku nekk li ngay am ak li ngay lijjantee say mbir yi bopp ak yooyu yëpp yaa ngi koy jëlee ci commerce bi donte nag am na lu bari loo xam ne am na rëq-rëq yoo xam ne ñu ngi ci biir euh, yoo xam ne vraiment euh, secteur la boo xam ne daal organisation bi nga xam ne moom la moom lay laaj am na lu bari lu ci des mais teewul nag ñu ngi ci góorgóorlu daal. am nañ problème d'éclairage am nañ problème de. d'ordure pour mbalitu mar marché bi commune bi jàpp leen ci di ko yóbbu problème yooyu am nañ fa problème bon euh, am na aussi problème am nan problème yu yu yu yu bëree bëri bëri daal saa à dire nag mais ñun nag luñ ci man rek dinañ ko def li luñ ci mënul nag euh, ñu xam ni loolu daal vraiment dañ ko dul man dañ koo mënul. lance un appel à travers tous les amis commerçants di marché Moubaracatou marché de Darou Khoudoss bon di leen yëgal ni bon temps yi waxtaan naat nan ak commune bi euh, ba fas yéenee liggéey liggéey ak ñoom ci pour lu jëmale kanam marché bi. ci loolu nag ñoom commencé waat nañ seen taxi municipal yi nga xam ne ñu ngi koy fayeeku commerçant yi may ñaan bépp commerçant boo xam ne ñëw nan ci yow euh, taxi bi ñu lay laaj jëm jëm ci mairie bi. nga joxe ko euh, parce que suñ sañoon marché bi day jëm kanam te jàpp naa ni maanaam suñ continuer di fay taxi yi ñoom am na engagement yoo xam ni war nañ ko fee def te dinañ ko def bon je vous remercie d'abord d'avoir euh, bon déplacé euh, en venant ici au marché de Darou Khoudoss kontaan naa ci yéen trop je remercie tout le monde et je lance un appel également au, au maire de la ville de Touba euh, de venir euh, participer pour le développement de notre marché d'Arcoubès. mbokk yi dégg ngeen leeral yu am solo yi nga xamante ni sëñ Matar Touré indil nañu ko fii ci marché Darou Khoudoss pour yéen ñu nga xamutoon marché Darou Khoudoss marché Moubarak la tudd ki ko joxoon tur bi nekkoon sëñ Abdou Lahad Mbacke ibnu Sëriñ Touba aussi waxaale nañu organisation bi nga xamante ni moom lay marché bi doxee ak mode de fonctionnement bi dégg ngeen aussi message bi nga xamante ni lancé na ko le maire de Touba pour mu jàppale ñoom ñi nga xamante ni ñoo nekk ci marché yi nekk si Touba fii la ñu yem ak yéen tey di leen jox rendez-vous seen si seen yeneen série de reportage مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة